والقلم وما يسطرون mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullah C3S moo dellu soit ak yéen di jongante mbindum alxuraan bi mu baaxoo amal at mu nekk édition ren bi nag dépôt yi ñeel candidat yi ci bëgg a bokk dina door benn fan ci weeru octobre 2022 war a jeex fan fanweeri fan ak benn ci weeru octobre 2022 yow mi ci bëgg a bokk da ngay bind lu tolloog xët ci alxuraan def ci sa tur sa san sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko C3S bi la gën a jege wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bi di candidat point yaatal nga topp tegtal yi lay jaarale ci yoon wii tax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 ربك بمجنون بسم الله فيني أدار يا الله طريقك فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسيب من kii nag daa bokk ci boroom xam-xam yi ñu jiite kuréel googu nga xam ne ñoo àndoon ak di boroomi xam-xam mu mu bëggoon laa leeral tuuti ci wàll bismillah kon xam naa liggéey liggéey bi comme ni nga ko waxee euh, Touba Ca Kanam euh, liggéey mii mi ab yëpp boo xam ne ñoo sofu ci ginnaawam mm-hmm. di ko jàppale ci liggéey yëpp ci tàmbali bi conception bi ba ba muy yéggee ci fi ñu koy réalisé di ko jébbale liggéey bii nag liggéey université bi bi ñu ñëwee dañoo fekk euh, démembrement bi nga xam ñoom ñoo nekk ci université bi defaroon seen i plan ak lépp ba mu noppi te Touba Ca ba mu ñëwee nag ñoom nañ ko bëggee woon ci ni ñu réaliser ko noonu ñu xaatim ak ñoom convention boo xam ne noonu lañ koy respecté ñoom ñoo indi seen bureau de contrôle ñoom ñoo def seen conception architecture bi def dimensionnement bi lépp bi ñu ñëwee nag ba signé loolu ba noppi dañoo jël benn ingénieur teg ko fa recruter benn entreprise teg ko fa ba pare nag lépp lu ñuy def dañuy woo mission de contrôle bi nga xam ne si ci njiitalu suñu maam Thierno ñoom ñi nga xam ne ñooy coordonné université bi ci bâtiment yi fa nekk yëpp ñu ñëw saytu ko bañ ne baax na ñu jàll si geneen wet looloo looloo waral bi ñu bi ñu tàmbalee nga xam ne bâtiment bi mi ngi ci bâtiment wu majalis yi la bokk muy euh, toll ci daanaka ñaari junne mètre carré yoo xam ne si ñeenti niveau la niveau bu ci tuuf ak ñetti étage euh, niveau bu ci nekk am na ñetti salle de classe boo ko boolee lépp ci ci kaw ba ci suuf mu am fukki ak ñaar ci salle de classe te niveau bu nekk am na benn bureau ak ak ay toilettes kii euh, wanag yu fa nekk ak lépp lépp lu muy àndal si saytu gros waaw mooy mooy mooy bâtiment bi nga xam ne ci tàmbali ba ba ba muy yegg ci fin su Touba Ca Kanam lépp loo xamante ni luy lu lu kuréelu université bi tegoon la ne war nañ ko war nañ faa jaar jaar nañ foofu noonu ay ingénieur di ko di ko saytu ba fii mu yegg ci fii nii waaw waaw lañ ci bëggoon a leeral waaw waaw li coût bi nag bi bi ñu bi ñu ko réalisé yëpp ba nga xam ne lépp lu ci dem yëpp mu ngi toll si cinq cent vingt et un millions voilà moom la wax cinq cent vingt et un millions waaw waaw waaw waaw saytu bu am bu am kii nag daanaka diggante bi bëccëg yu ne jaar na fi waaye daal góorgóorlu nañ daal ba tawfeexu sëñ bi ñu doole xanaa mooy équipement bi ñu ngi a équipé yi tamit lépp Touba ci kanam du ko du ko jël nga xam ne du ko jël asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Seyxna Ahmad al Xadim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Seyxna Ahmad al Xadim alhamdulilahi rabbil alamin ñu ubbee loolu barkeeloo ko ci njàngale mu am solo mi nga ci jàngale woon di la nuyu ci tur sëriñ Habibu ak ñii mu àndal liggéey bi di magam alhaaji sëñ Takko moom sëñ Fàllu mi ngi nii toog di jàmbaar lool ci liggéey bi yoo xam ne da ciy jëf te ay waxam néew ci lool waaye ku sonn ci liggéey bi Touba Ca Kanam la mbooloo mi àndal ñëpp di nuyu sëñ Amadou Badawi yi mi nga xam ne moom nga tegoon liggéey université ci loxoom te ñu ànd koog moom di nuyu sëriñ Bachirou mi nga xam ne mooy sa jëriñ ci liggéey te moom it jàppale nañu ci bu baax a baax ci wet yëpp di nuyu suñu maam ci am ñoom ñi nga xam ne ñoom nga fa tegoon di leen saytoo liggéey bi te ñoom it ñu àndoon na ñun liggéey bi te yaatal nu ca bu baax a baax ni ko dawo da wilaan waxee rek lépp luñ te mas soxla waa ko ànd ak ñoom jàppandal nañ ñu ko teg nañ ñu ca yoon wa te yàlla dimbali ñu ci ba nañ lañ tegoon ñoom na ma yañ tegoon ne moom lañ bëgg ku ko liggéey bâtiment bi Touba ci kanam defee na ko noonu defee nañ ko noonu ñuy sant yàlla baax di sant sëñ Touba di la sant baax di la sant di la ñaanal di santaat bu baax nag ci tawfeex ji nu am ba ànd yow liggéey bi ndax bi nga ñëwee li gën a doon sa itte ci liggéey bi nga tàmbalee ko mooy daara ji nga xam ne Serigne Touba naaraloon na ko boppam loon ko boppam bëggaloon ko boppam te jaayante woon ko boromam ba nangul ko ko bil Moustapha lii banal xudduusu madrasatan biha yesul asa wal jël wal kabal loolu tegtale ne madrasa mënutoon a ñàkk ci Touba yow lañ ko fi bàyyi loon nag alhamdulilah bi ne ba nga ñëw def ko ndax sëriñ moom léppam la mu ko waxee woon waajal na ko ba teg lu mu génn gut ak génn ma jotagut waaye lu dafa ne waxoon dafa waxoon ne Touba lépp fàggu naa ko ba teg lu ngeen gisagut ak génnam daa jotagut waaye lu génnam jot ma génnee ko dafa mel ni kon lii dafa doon loo xam ne ak génnam day doo ko jot mu jaarale ko ci yow kon ñu ngi ciy sant bi nga xamee ne nu itam bi nga ko yëkkatee ci njiitu sëriñ Habib ak Touba ci kanam am nañ yitte ak pas-pas ak yéene ànd ko ak yow tax ñu ñëwoon jëloon engagement taxaw taxawal fa bâtiment bii suñu borom dimbalu na ba tey mu àgg ba ñëw di la ko jébbal loolu sant nañ ci yàlla lool sant ci sëñ Touba li la ci sant ndax buñ ko mënee yawa ndax fu Touba ci kanam àgg tey yawa kon ñi ngi lay sant bu baax te di la ñaanal di ña suñu borom yàlla na fi suñu borom yàggal lool dama la waxoon bañ koy doog a tàmbali ci ci say wax ni wàcc wàcc ci àddina ak ñàkk soxla ci dund ba nga naan su ma xasee tàmbali rek li ci des moom su ma demoon ma ne la ëpp naa def mbàkki toogal ba lépp ak nga nga ubbi ko ñu tàmbali liggéey bi te nga tàmbali leneen te loolu ba tey moom la ñuy ñaan nag yàlla na ko yàlla defal sëñ Tuubaa sa jëmm ji yàlla na ci yàlla us taalibe yi yàlla na ci sëñ Tuubaa feeñal kéemaan bàyyi la fi ndax sagub yoon wi nga sagub lislaam yi ñëpp la ittewoo yàlla na la fi yàlla bàyyi alhamdulilah baax ndax sëñ bi dong nga a yàlla yonente bi de xaasal nañ ma ci seen bopp mhm. waaye fekk nañ ma itte waaye yow sëñ Muntaxa it sëñ Tuubaa xaasal na la waaye fekk na la itte foo àgg sa ittee la fa yóbbu wóor na ma ne mag ñaandoon na sëñ bi bu ñu la fekkoon duñ la ëppale la waaye sëñ bi tey ba xam naa ne sa pas-pas sa itte it la sëñ bi ne woon rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bu ma fekkutoon lu dul jaww ji ko daa tiim sama pas-pas may na ma am ci moom li ma bëgg loolu la sëñ bi ne ko kama doon seet su ma ñu ne ma fii lañ ko denc la bëggoon danaa ko ci am ba àgg fi mu àgg waaye yow mii itam foofa rek nga nekk wóor na ma ne fa nga àgg ci sëñ bi lu mag ñi am sëñ bi am nga ko sëñ bi te sa pëstee fa la ko àggale kon nag ñëpp ngi ñaan nga yàgg te wér lool te lépp loo yéenee defal sëñ Tuubaa na nga ko def te ànd ko yow sa sa dund gi daal yàlla na doon dundu kiimaan goo xam ñëpp dañ naan lii wowutoon mën a nekk ci bàkkib sëriñ Touba sagub yoon wi nga sagub lislaam nga Touba ci kanam gépp ñu ngi lay sant te di la gërëm te di la ñaanal liggéey bi sëñ Ayib dana ko yëkkat teg ceeb bi ci sa loxo ak këy yi nga ñaanal nu ñu ñu diglu ndigal la leen ndigal loolu joxaat ña nga ca bu dee waajtaayu màggal gi it ñu ngi ci Cheikh Mamadou Bassir mi nga ci ko dénk woowoon nañu fan yi waxtaanoon ci ci ndoxum taw mi ci dëkk bi te jaaxal ñëpp ci mbedd yi ba itam Touba Ca Kanam ma nga ci tàmbali na ca ma nga cey def ab liggéey nga ñaanal nu ci baax ba ñu àgg ci màggal ga ñu def ñu am ci ndam xëy na dana jafe ndax ginnaaw dañuy ngacc muy taw te yàlla moom coobaram la jël waaye nañ ci nekk alhamdulilah kon nañ ci nekk rek nga ñaanal nu ci bu naan mi it ñu ngi ciy sant ndax amoon nañ ñeenti oto yi camion yoo xam ne Touba ci kanam moo ko jënd ngir ndox di joxe ndox ci dëkk bi luyee nañ fukki oto yoo xam ko luyee suñu bopp yëpp ñu ngi ci nga ñaanal a baax ba loolu lépp yàlla defal na ci tawfeex ci màggal gi te ne nan ko jottali ci mbooloo yëpp nga ñaanal xam ne ñoo yowoon liggéey bi di ko taxaw ñoom it moom nga ñaanal leen Cheikh Abdou suñu mi moo jiite woon commission bi àndoon ko maam Cheikh Ndiaye ñoom ñëpp ñi ngi ci jataay bi ñoo doon taxaw liggéey bi ak ingénieur yi ak waa Touba kanam gépp nga ñaanal leen yàlla defal leen ci tawfeex ak ndimbal ak ngërëmu sëñ Touba maa ngi jégalu ci kàddu bi nga xam mooy kontaan ay kii mooy waaw waaw plomberie bi mooy mooy affaire ndox mi yooyu waaw courant fer baa ngi waaw informatique yeeg surveillance yooyu yëpp waaw yëpp waaw ministère yi baa ngi bu ne bu ne def moom moom moom def foofu yi waaw ñu ngi koy jëbal wala yu si bopp lépp rek ngir jëm sëñ bi nga xam ne moom ngay liggéey rek ñu ànd ko waaw di ñaan suñu borom àgg na ko si yëpp daal waaw si am. waaw moom lañ ko. alhamdulilah rabbil alamin gën a yeesal suñu lépp jaayante jiitu ji sàddee suñu lax saay fa seen liggéey ànd ko yéen jiitu ji tegu ci sax dàkk nag ci eh, liggéey sëriñ bi eh, ci sama. waxi taalibe dama daa wax ne eh, eh, sax dàkk ci jaamu yàlla liggéey la ko sëriñ bi sax dàkk ci liggéey sëriñ bi jaamu ko yàlla waaw ah, loolu foofu doo loolu neexut neexut lijjanti kon eh, bis ni ki maa ngi gën a yeesal sama jaayante di gën a feddali sama laxsaay di gën a nag sama yéene ji ma xam ne yéen laa ca jiital ak lu ma ci mën a bëgg rek ba ma sax ngeen jiitu ma ci ma topp seen gannaaw dafay euh, tàmbalee mooy liggéey bi euh, mooy ci kanam gi euh, di di di di di di di pàggute fu sëriñ Touba jógul fenn pàggute fu sëriñ bi rek la nun nu am tawféex liggéey ko ndax bi yëpp ci kanam Euh, lépp pàgguteefam la ak tawfeexam li euh, ti nga xam ne moo ci euh, su moo di lu bari ci doxinu adduna lu bari ci li weesu ci histoire rek lay mujj waaye nun la nun fii lii liggéey bi sëñ Tuubaa bii la cay suñu jom di suñu gor di suñu positif di suñu yitte lépp nañ ko ci dem nañ ko ci def ci suñ dund gii te faggul ci njaboot gi ñëw ëllëg ñu taxaw taxawaay boobu ba bis biñ ci ba bu mu doon histoire mukk nañ ko nañ ci nekk ba bis biñ ci ba ci kanam sëñ Tuubaa loolu de loolu loolu dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy jóg suñu bopp ba noppi waaw dañuy jóg suñu bopp suñu yéene suñu sellal ko suñu positif ñu wéral ko suñu yitte ñu dolli ko suñu taxawaay ñu yokk ko suñu kam kattan fas yéenee sax dàkk nag ca gis sëriñ bi rek xool sëriñ bi rek naan xool sëriñ bi rek buñ ko gisee bu buñ ko defee nii ñu ko waxee bis biñ ci ba rek lay bii day dox ba bis biñ ci ba du mujj ci histoire muk te lu bari ci àdduna doxina àdduna histoire lay mujj kon lii moom la ci suñ jom di suñ gor di suñ positif di suñ yéene di suñ yitte di suñ taxawaay nan ko def lépp ci liggéey bi di di dox di dox eh, ba suñu dund jeex ñeneen wuutu ëpp lu ca ëpp taxawaay loggi bi dox di dox di dox ba penc bi ci kanam Sëñ Tuubaa loolu mooy moo loolu loolu loolu loolu dañ koy fas dañ ci jugal suñu bopp fasal ko suñu njaboot muy muy muy wéy di wéy am naa ci yaakaar nag bu baax a baax a baax a baax fa tabaarakallaahu liggéey bi taxaw taxawaay bi mat na sëkk rafet na sell na fa tabaarakallaahu lépp nag dama koy daal delloo si nag ci sëñ Abibu mii du du du du loo xam ne dama koy dama dama koy gërëm ak dama koy dara day dama ko jàng ba xam ko xam nga ma ko njël bi li xamoon naa lépp lu baax la li jot xam lépp lu baax xamoon naa ko waaye nag eh, dama ko jàng ba xam ko noonu nanu nanu gën a ci taxawaay fii fii toll nañ ci gën a sant yàlla bu baax a baax a baax gën a sant yàlla gën a sant Sëñ Tuubaa ci fàggute bi nga xam ne fàggul nañu ko ak tawfeex jure yi nga xam ne def def nañu ko eh, ci Sëñ Abibu mii ndax eh, taxawaayam bii du taxawaay nit nit kese taxawaayam nit tagguma ko waaye waaye seet na ko piste bi mën na sëkk piste bi mën na sëkk yitte na lool ngor gi mat na jom ji mat na dogu gi mat na itam lépp ndax delloon delloon lépp ci sëñ Tuubaa loolu tëgguma ko dama wax li dama ko jàng ba xam ko ci moom moo tax ne kon liggéey bii xel daal na ci na sama xel daal na ci bu baax a baax waaye ngeen xamee ko noonu sëriñ sa sa sa nan xool sëriñ bi nan xool sëriñ bi rek bu ñu xoolee sëriñ bi rek suñu kem kattan di ko jéem a xam di ko jéem a dund suñu kem kattan eh, alhamdulilahi rabbil alamin du ñee kenn fu suñu borom nan góorgóorlu bu baax eh, sëriñ bi mooy mooy yoonu yàlla rek amul yeesul mankiwul sëriñ bi mooy yoonu yàlla rek sëriñ bi mooy yàlla yàlla rek yàlla jox na yàlla léppam teguwul dara lu dul boromam sëñ bi teguwul dara lu dul boromam ak yonent bi mu ko tegtal ci biir loolu itam gaa yi yàlla yëpp ca malaayka ya ca yonent ya ca gaa yu baax ya yëpp jox leen seen aq seen diggante digg jox leen seen aq ndax bokk gi ñu bokk moom seen seen seq gi ñu seq seq ak seen borom jox leen seen aq ba mu kon sëriñ bi doxin bii da la ma ci yéene mooy eh, nu bokk ci eh, ñi ñoo doxee ci wàmmatug suñu borom ñuy doxee wàmmatug suñu borom nga xam ne du dara ci seen bopp waaw waaw da tàmbale ko ci malayka yi tàmbale ci yonent yi ba ci sunu sëriñ bi bu baax daara ji منك يا الله دارج مرتبتي بلا انقطاع بفضل منك يا الله رواك يا رافي دارج مرتبتي بلا انقطاع بفضل منك يا الله